toujours lu may crier fii toujours dañoo war a respecter institution yi doxal de telle sorte que euh, waruñu ŋàññi institution yi c'est que tous ces chefs d'accusation yi ngay gis noonu lu ñu yàgg a recensé ci euh, Ousmane Sonko mus naa la wax fii tooñ baaxul dafa yàgg di tooñ donc tous ces chefs d'accusation dañ ko dajale woon ko ko moo tax euh, c'est dommage vraiment Euh, lii dal ko euh, comme lu may wax rek man toujours yéenewu ma kenn euh, yenn yi mais nag nit da ngay xam ne soo nekkee ki dëkk ci réew un pays de droit da ngaa war a respecter les institutions du Sénégal nga si wax si dem ci lu ne da ngaa war a xam ne ne réew dafa am ay charte yu ko laal nga respecter ces chartes là soo ko respecté wu lu mel ni moo lay dal c'est dommage que mu dal ko. te vraiment je suis vraiment désolé euh, ci situation bi waaye parce que euh, comme lu may wax rek euh, le projet PASTEF bu ñëwee euh, vous savez que dañu war a saluer remercier beaucoup les forces de défense et de sécurité de ce pays xarañte bu ñu am liggéey bu rafet bu ñu def bu nekkuloon ñoom je vous dis Sénégal tey leneen la ñuy kii parce que ñoom seen projet ces manifestations passées juin ba leen passé lu ñu naroon loolu lu ñaawoon la ci ci ci dëkk bi moo tax euh, les renseignements généraux def nañ liggéey les saisies de portable la tey son euh, le le le le ministre le, le ministre euh, Antoine Diome ministre de l'intérieur te l'intérieur Antoine Diome tey su waxoon lu portable yi wax aduna tukki mais am na secret yu mu gardé ñii lu ñu jógoon mooy euh, narmeelu Sénégal avec ñeneen ñu nekk ci seen ginnaaw parce que euh, c'était très très très très très très très très dangereux lu ñu naroon. mais am nañ ay renseignements généraux am nañ force de sécurité yoo xamante ne xarañ nañ xarañ boo xamante ne dañu dañoo anticiper euh, vous savez que. parce que Antoine Diome aussi li mu gis ci téléphone bi yow gisoo ko. dama la gis nga chef yi rek ñooy wone loolu chef d'accusation yi ngay gis noonu am na yu bari sa waxuñu ko ñooy wone loolu ñooy wone loolu yaa parce que soo gisee si seen wax. seen engagement sont à l'occurrence euh, Ousmane Sonko je vais rendre le pays ingouvernable je vais tatatatata nga xam ne kii du moom kese donc il a mis en alerte euh, ces forces de sécurité di du Sénégal ñu def seen liggéey anticiper lu bari nag su amuloon anticipation euh, cible bari na bari woon nañ cibles yi laa wax les cibles même ay télé ay nit cibles yi bari woon nañ mais yàlla def na fi loo xamante ne ak kilifa diine yi Sénégal lu ñaaw dina am ay perturbation comme tous les pays d'ailleurs perturbation yi tout le monde partout foo dem ci ay réew ñu ngi am manifestation c'est la démocratie mais nag Sénégal fii kenn mënul yàq Sénégal ku ko xam Sénégal nu mu bindoo ak nu mu toogee ak kilifa diine yi fi ne nga xam ne ku ko def day dellu sa ginnaaw. d'accord nañ yéeneente jàmm euh, vraiment lu yàlla war a dogal ñu xam ne lii la.